léegi nag ñu ñëw nag fii ci Ngaye fi département de Tivaouane seet si jigéen ñi indi leen suñu contribution ci loolu indi ko nag ci forme benn package boo xam ne bi parce que jigéen tam boo ko dimbale doo ko xaw a sonal mbas bi ñëw na metti na jaayu leen nañ ko léegi ñu nekkoon ci boutique yi am ñu jaay ñu doon salon de coiffure bi surtout salon de couture yi amatul événement toogal sa kër moom dafa ànd ak vraiment ay contraintes yu métti du point de loolu moo tax président ne jigéen ñi dañ leen jàppale indi na

alaaji moom xam naa sama embassy ak yooyu ana alaaji Samb mbaa Marie Dula tax mu génn ki donc oh, yooyu moom dangeen koy moom oh. parce que xam naa ne mbasin du ñàkk maraaki si ñàkk waaye li gën am solo nag mooy ngeen liggéey après ce qui est important mooy ngeen liggéey après pour mën a am ay ressources yoo xam da ngeen mën taxaw parce que Covid dafa metti te xamuñu kan lay jeex comme xamuñu kan lay jeex nag da ngeen fexe ba vraiment ressources ngeen liggéey ci mu mu généré ay bénéfices ngeen mën ci taxaw ëllëgam si ngeen mën ci liggéey maa ngi félicité bu baax waa ci vraiment ciblage bi parce que lu am solo xam naa politicien bi ma mere sax nag ndax maa ngi dégg lu nekk dans le Sénégal où sont les femmes de la paix waaye damaa bëgg a xam ne Sénégal ñu rek ñu ko ñëpp ko bokk te jigéen ñi fi nekk ay jigéenu jàmbaar lañu nga nekk APR wala nga nekk PDS wala nga nekk réew mi wala nga nekk foo mën a doon dans le Sénégal le président ce qui est important pour lui c' est de soutenir toutes les femmes du Sénégal de quelque bokk que ce soit foo mën ne Sénégal rek jigéen ci nga bokk parce que jigéen nga yaa ngi liggéey kon loolu moo tax président ju amul xaaj amul seen c' est l' argent de l' état c' est destiné à tout le monde